góor ak ci jigéen Omar dañ fi waxoon sa ginnaaw benn masala ñi nga xam ne dañuy laajte mbiru jiital laazim ak wadifa su ko defee dama koy jiital rek ci lu gàtt nag tey moom dama bëgg ñu tafsir lu yaatu incha allah jiital laazim ak jiital wadifa mën na nekk ci tarixa bi waaye charte la charte yi nag bu dajewul ci yow boo ko defee sa laazim wërut boo ko defee it sa wadifa wërut fokk charte yi daje charte moo di condition yu mënta ñàkk la fokk mu am nga door a sañ jiital li ñuy wax jiital loolu moo di lan cheikh seyd ahmad tijaani radiallahu taala anhu moo wax ni sama taalibe bu jullee gee ba ba noppi kon charte ëwwal mooy foog nga julli gee <laughs> sew sew la nag charte ëwwal mooy foog tarixa bi awraatam yëpp borom tarixa bi mu ngi ko nëbb ci gannaaw julli kon ku julli bokkoo awraatu tarixa bi yëpp gannaaw julli la mooy boo julliwut bokk balaa nga naan naam ne fa walla déet kon tarixa bi naxul kenn foye loolul kenn diineem foye loolul kenn mbokkam foye loolul kenn ay way juram tarixa bi léppam ci lislaam la tege ak yeneen turuq yépp nag Seydina Cheikh moo wax ni sama taalibe sañ na jiital laazimu subaam ak wasifa subaam waaye charte yi bi ci jiitu mooy foog nga julli gee ba pare nee soo jullee gee ba noppi mu ne ba muxtaaru gee jeex muxtaaru gee mu ngi yem dix heures et demi fala muxtaaru gee tàmbale muxtaaru gee mu ngi tàmbalee fi daruri timis tàmbale timis muxtaaram dafa gàtt matul cinq minutes wala ci la yem muxtaaru timis ilaa yawmi yubaasuuna ba bés penc di taxaw muxtaaru timis du paase cinq minutes moo gën a gàtt ci muxtaar yi timis moo gën a gàtt ci muxtaar yi muxtaaram weesuwul cinq minutes fi foofu nag fi muxtaaru timis jeexee fa la muxtaaru gee tàmbale jëm ba dix heures et demi Yaxya Jóob Mansour ba dix heures et demi dix heures gee yem biñ ko nattee nattuwaay bi nag man nattuma ko suñu sëriñ Cheikh El Hadji moo ko nattu ci ay nattuwaayam ku ne wax na ci nag waaye li gën not daal te Maodo toujours li gën a not lay jël mooy dix heures et demi fa la muxtaaru gee yem daruuri bi mooy vingt deux heures trente mooy dix heures et demi boog ndax dix heures demi ci suba dafa am pour nit ñi bay wax ak ñoom nga wax lu leer vingt deux heures trente fa la muxtaaru gee yem daruri bi moo tàmbalee vingt deux heures trente ba fajar kon yaatu na vingt deux fajar xar foofi julligee yaa ngi ci waxtu wi daruri timis ak daruri gee ñoo ànd ba fajar ñoom ñaar daruri bu timis ak daruri bu gee ñoo ànd di dox ba fajar xar timisit fekk fajar xarut tuddagul fay gee feek fajar xarut tuddagul fay bu fajar xaree nag ci lay tudd fay ñoom ñaar ñëpp tisbaar ak tàkkusaan nit fekk jant bi soowul tuddagul fay moxtaaru tisbaar mu ngi tàmbalee une heure trente treize heures mu ngi jeex quatre heures quatre seize heures trente seize heures trente la moxtaaru tisbaar yem tàkkusaan moo tàmbalee seize ba jant so mook daruri tisbaar ak daruri tàkkusaan ñooy ànd ba jant bi so bi sowul tisbaar ak tàkkusaan tuddagul fay bu jant bi sowee nag ci lay tudd fay leer na jullik suba mu ngi tàmbalee ba jant fenk fa la muxtaar mi yem daruri bi fa la yem moom ñoo ànd ndax moo tax bu jant bi di fenk rek fay lay tudd fay la tudd moom julli suba moom bu jant bi ne dàng rek fay la tudd mooy bu jant fenkee rek fay la tudd tuddatul leneen mënoo ko tuddee neneen fay kon ñaari ràkkay fajar ya nag lañ bëgg nga bàyyi ba yor yor bi yëkkati ku nga door ko julli nga door koo fay yow taalibe tiijaan taalibe tiijaan bi Seydina Cheikh dafa ne sama taalibe na fay ñaari rakkay fajar na fay ñaari rakkay gannaaw timis nee na su ko fàttee wala mu wala raw ko na ko remplacer ak juróom fukki salaatul faati mooy cinquante salaatul faati tarixa bi naxul kenn nee na safa ak witr mayuma ko it sama taalibe man Seydina Cheikh obligatoirement daf koy julli lum ko rawoon bu ko fàtte fay boo demee ca fàkkeetu tulaab bu Seydil Hadj malik saa yoo ko bu dee nag da nga koo fay boo julee shafa julleel ma lee witr da ciy teg ñetti jawharatul kamal mooy timbre bi koy yóbbu soo amul jawhara du dem ndax fa nga ko waroon a jullee da ko fat da nga ko faay dafa paase li tax nga julli ko léegi nag fay ko léegi lan nga teg mooy poids bi koy yëkkati mu dem fekki julli ya moo tax Seydina Cheikh ne sama taalibe bu fayee safa ak witre ba noppi bu sëlmalee witre na ca teg ñetti jawharatul kamal leer na tarixa bi naxul kenn ku bëgg mu nax la nag du la nax moom dëgg rek la lay wax xanaa nga nuur ci lu la neex waaye tarixa bi moom dëgg rek la àndal moo tax nag Seydina Cheikh ne sama taalibe sañ naa jiital laazimu suba ak wadifa suba waaye ci chart yi ma wax nag dama doon leeral yéele pour mu gën a leer muxtaaru gee foog nga julli gee ba muxtaaru gee jeex Seydina Cheikh ne fi muxtaaru gee jeexee mooy vingt-deux heures nga jàng juróom benn hizib ci alxuraan soo ko jàngulit foog nga toog toogaay ba maanaam walla nga bàyyi bay période ba jot waxuñ la ne obligatoirement da ngay jàng juróom-benn hizib yi ku mënta jàng falax ak naas yi boo ko jàngaloo juróom-benn hizib rey nga ko di koo xam ne walla koo xam ne balaa jàng war a mën a continuer kooku xam nga njàngum ijji lay doon kooku taxul ñuy wax na leer kii ijji taxul ñuy wax ki mënul jàng taxul ñuy wax ki ferul ijji taxul ñuy wax te ki ferul ijji ki mënul jàng ki mënul liir jàpp na tarixa ah waaw jàpp na tarixa boo jàppee tarixa bi mënoo liir alquran mënoo jàng alquran mu ngi mel ni nag dinaa ci ñëw may ma mu ngi mel ni ki dugg ci julli ki dugg ci lislaam te mokkalul fatiha kii door a tuub te mokkalul benn saar mokkalul fatiha mokkalul dara te fatiha di farata ci julli te fokk mu jàng ko nu muy def ñaar kooku dañ ne faw mu am ko mu roy pour julleem baax moo xam mbooloo la moo xam koy julli mu roy ko wala koo xam ne giddam la moo ko tax a dugg ci lislaam muy ànd ak moom di jullee ndoor ak moom di jàng faatee ba ba mu koy mën ñu ne waaw su gisut kooka gisut kenn te war naa julli ñu ne day kàbbar taxaw taxawaayu faatiha day kàbbar taxaw ne teg diiru li nit di jàng faatiha ba mu jeex taxawaay boobu foog muy taxaw ko dooraru ko siggi sujud def ni ñuy def kuy julli bu taxawaatee it foog mu taxaw taxawaayu ku jàng faatiha saar jéggal nañ ko hmm? waaw kañ ki Seydina Cheikh di wax mooy ki nga xam ne mën na jàngal Alxuraan waaye terewul na ki ko mënul jàngit war naa mën a jiital laazima moom it su fekkee mënta jàngal xuraan fokk mu toog ba diiru li Seydina Cheikh wax jot mu door a jiital laazimam doo ji liggéey rek ne 22h30 jot na muxtaaru gee jeex na julli naa mënumaa jàngal xuraan fokk ma jiital sama laazim du noonu moo tax nag ñu nattu ko 22h30 la muxtaaru gee jeex diggante 22h30 nag ba 0 heure. mën nga fa jàng juróom-benni xisib yoo xam ne njàng mi gaawul lool diibul lool loolu la Seydina Cheikh wa mu ne bu njàng mi gaaw ba mel ni kuy lekk laaxu caaxaan bismillah yaa ayyuha allazina amanu taqullaha yaghfir lakum am na ñuy jàng boo demee ci kaamil yi xam nga ne gars yi niñ koy jàngee imaam xam na ci dara boo demee ci kaamil yi ah moom yërmande yàlla rek waaye billaay wàccee kaamil yi ngay gis xanaa bu ci yàlla roofut yërmandeem waaye bu ci roof bu ci rooful yërmandeem àddina tukki ah am na ñoo xam ne ni yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum wa yaghfir lakum wa man yuti llaha ku ci wàññi xaalis kat par benn nga koy teg nañ waxante dëgg rek maa la ko wax kuñ ci joxoon cinq cent mille ne la ko danga ko nank ndànk moom kañ léeg-léeg sax nga ne on recommence maa la ko mu ñun yàlla rek lañ yàpp waaye àddina liñ ko bëggee yëpp jox nañ ko ko ba mu jeex takk waaye yàlla moom zéro mënaluñ ko dara gis nga ba ci julli yi sax dangay gis julli goo xam ne doo bëgg lu dul rey borom ndax façon gaaw bi julli gi di gaaw dafa ëpp dafa ëpp dafa ëpp ñun li ñuy defal yàlla rek ñu ngi koy def ak yàkkamti bu dee weeru koor balaa jant di so nga gis ku teg boolu ceebam boolu tàndarmaam ndoxam kaasam bisaabam rangale yëpp di ko xool mu wóor la ne kii bu jant bi yéexee so sax mu dog ndax yàkkamti ndax yàkkamti mu la kii bu jant bi reppoon ba yéex mu dog moom xaaratu ko nga ñëw ci jàkka ji ilimaan ju mel ni imaam Mouhamad Lamine Diop nga xam ne faatiha am rek jël na daanaka trois minutes nag moom fu ko neex lay tibb te ndànk la koy jàng moom boobu dee ilimaan jooju da nga naan xaaral ma dem seeti jàkk ay rapide ilimaan rapide dem ci ku mel ni Sidi Kunte nga xam ne xul wallaahu ahad laahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad xul wallaahu ahad laahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ah, yàlla moom am na yërmande de waaye am na loo xam ne dana la jéppi de bu lay joxit dana la jéppi waaw wala nga dem ci jàkk joo xam ne daa mel ni Abdou Aziz Thiam moo fay jiite am na tabaarkal waaye boobu sax dana neex neex goo xam ne boo moytuwul sax danga nga naan na na wéy na na Abdou Aziz wéy waaye yooyu yëpp nag yàlla mooy jàngale rek moo tax nag ki nga xam ne jëlul tariqa jël na tariqa bi te mënul jàngal Alxuraan du sañ rek ne muxtaaru gee jeex na mënuma jàng alxuraan kon damay jiital sama lazim du wér Seydina Cheikh dafa ne fokk muxtaaru gee jeex mooy 22h30 nga jàng fi juróom-benni hizib yoo xam ne njàng mi gaawul ba ëpp waaye yéexul ba ëpp mu ne fu juróom-benni hizib yi jeexee rek mën nga jiital sa lazimu ëllëg soo amee koo àndal charte amatu ci bu dee yéen ñaar kott la ngeen di taalibe Tijaan mën ngeen jiital seen wadifa ëllëg. bu dee yéen ñaar kott la man ngeen jiital seen la seen wasifa su fekkee ne nag yow dong la amoo koo àndal feebaroo waruloo xëy liggéeyi waruloo xëy jàngi waruloo xëy tukki maanaam ngant te ngant dafa yaatu li tax ma boole ci xëy liggéeyi jàkka yii ma gis ci Sénégal ñuy wasifa ku ci nar a wasifa ak ñoom dinga am sanction fa ngay liggéeyee ba tàyyi te liggéey ci jaamu yàlla la bokk ndax dañuy diri wasifa bi ba mara day taale wasifa woo xam ne quarante minutes quarante cinq minutes ak embouteillage yii ci dëkk bi nga war a xëy liggéey dangay ngay étudiant war a xëy jàngi boo demee ca jàkka ji bu soobee yàlla dootoo ko dolli dañ ko tegul nag ci yoon bu fekkoon wasifa yi teg nañ ko ci yoon ñëpp mën nañu xëy wasifa ci jàkka ji dem waaye dangay dugg ci jàkka ji paa yoo xam ne nañ ma bàllaax daanaka àllaaxira lañ gën a jege mënatuñoo yëkkati seen baat seen baat neexut ñoo fay nekk diriger wasifa wasifa wi di ko diri rek jeunesse bi daanaka xajaluñ leen ci jàkka yi xanaa léegi sax léegi xaw na tan amee koo àndal yow taalibe cheikh jiitalal sa laazim ngeen ànd jiital seen wasifa à de minuit zéro heure su leen neexee waaye li gën mooy ngeen jiital laazim ba noppi door a teg wasifa su ngeen ko safaane woon it dara newu ci wasifa ba noppi door a laazim dara nekku ci charte bi daal mooy fokk nga am ngant ngantal jàngi ngantal tukki ngantal liggéeyi ak mu wóor la ne boo demee ca wasifa wa tardé te boo demee fa ngay liggéeyi doo ko mën a def foofu nga boobaa am nga sañ-sañu jiital sa laazim ak sa wasifa à partir de minuit leer na ku amul ngant nag sañoo jiital sa wadifa suba laazima suba nag sañ nga ko jiital moom ñàkk ngant ñàkk am ngant ci yem bu bu bu bu wi xesee jot rek mën nga jiital sa laazimu ëllëg foofu moom charte bi mooy foog min wi jot nga sañ a nag sa laazimu ëllëg kooku moom bu ci xaar kenn bu min wi xesee jot rek jàppal ba set jiital sa laazimu ëllëg su min wi jotee nag nga am koo àndal charte yi ci des yëpp dàqooti na àndal moom ngeen wadifa leer na kañ beneen bi ci des nag mooy bu dee jigéen foofu la coow amee su fekkee jigéen la dañ koy tànnloo donte nag am nay werante waaye man toujours damay wax ne ñëpp liñ wax wér na waaye ku am kilifa da ngay tënku ci sa kilifa te ñun Cheikhul Xaaji Malik mooy suñu kilifa bu dee jigéen xam nga wadifa ca jàkka ja ak xadara ca jàkka ja ca mbooloom jàkka ja farata la ci ku góor waaye du farata ci ku jigéen jigéen mu def ko ci biir këram ci biir néegam mooy farata ci moom wala ci saalam wala ci ëtt bi mu def ko ci biir néeg bi sax mu ëpp doole mu def ko ci saal bi wala ci ëtt bi wala ci mbedd mi comme julli rekk bu dee jigéen nag fu min jotee yow jigéen jiitalal sa laazim bu la neexee nga jiital sa wadifa ndax dem jàkka ja moom du farata ci moom su ko neexee it nag mu jiital laazimam rek bàyyi wadifa bi li tax nag jiital laazim am doole moo di Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi dafa ni benn peru salaatul fatihi à partir de minuit mu ne wecc na cinq cent salaatul faatihi ci bëccëg mooy avant minuit kon jiital lazim ñaari bénéfice a ngi ci te bu dee ci lazim bi day ëpp doole dina ëpp cinq cent cinq cent yi mooy nga toog rek ba minuit jot yow sax jàppoo tarixa wala jàpp nga tarixa bi def nga sa lazim ba noppi nga ne naa barkeelu ci junni salaatul faatihi bu boobaa junni bu nekk per bu ci nekk cinq cent la booba lay doon cinq cent per bu ci nekk cinq cent waaye su fekkee ci laazim la ak wazifa per bu nekk ëpp na cinq ndax ci farata nga nekk farata ak naafi la du benn mu ngi mel ni ngay julli julli farata ak julli naafi la liñ la ciy fay du benn jullik farata lañ la cay fay moo ëpp doole liñ lay fay ci naafi la wa kadalika nag jiital laazim salaatul faatihi ja ngay jàng mooy ëppati doole ba ngay jàng jàng après minuit te génn ci lazim ak wasifa kon avantage yu bari na su ko defee nag yàgg naa wax ne taalibe tijaan boo gis war na am malaanu wasifa këram bu dul dara soo amee ganuk taalibe ngeen jiital seen lazim bu ngeen toogee di naan attaaya di yéey gerte caaf ba minuit ngeen jiital seen lazim jiital seen wasifa door a tàqali koo dem ñibbi beneen bi ci des moo di su ngeen toogee tàkkusaan jot bu leen neexee ngeen lal seen malaan wasifa waaw tàmmal seen bopp wasifa waaw ci tarixa bi wasifa charte la ci mbooloo ngay wasifa charte la ci ci ku góor waaye du charte ci ku jigéen li ma wax rek jigéen moom ci kër ci néegam rek ci kurusam mooy sartam xadara bii ñuy ñëw sax bu leen neexoon ñu toog dara du leen ci fekk waaye ñun ñi ku ko ci defatoon ci mbooloo ñetti ajjuma rek di nga yees lu ji te tey ko laa wax te tey ko amoo benn ngant amoo benn contrainte mu neex la rek nga yëy sa gerte caaf jaaxaan toog ba jant di waaj a so nga xadara ci sa kurus ne ah mbooloo ma daal jarul dem naa toog fii rek boo ko defee ñetti yoon war nga yeeslu fokk nga am ngant beneen bi ci des moo di xanaa nga dem ci foo xam ne nit ñi dañ topp seen bakkan comme léegi jàkka yi wasifa une heure de temps bariwul te charte bi mooy minimum une heure de temps maximum deux heures wala une heure trente cheikhul xaaji malik une heure trente la indi ci faakeetu tulaab buxyatul mustafid une heure trente la indi kutubu tarixa bi yëpp téere tarixa bi benn téere moo ci indi une de temps te wér na mooy kashful xijaab bu cheikh sukkayri ñi ci des ñëpp une heure trente lañ indi waaw kon lañ mooy ndey yi toog ci bunti jàkka ji di waxtaan di waxtaan di waxtaan même des quinze minutes ngeen dugg di wax yu kenn xamul loolu du xadara loolu moom caaxaan la am pola rek waaw imaam Abdou Aziz ñëwal nii ci wetu imaam Gaye bi ci des nag moo di foofu lay jeexale ci wàllu lazim bi jiital ko jigéen daal bu dee moom mooy tànn rek doonte nag am na ñuy wax leneen weddiwuma lañ wax de weddiwuma ko waaye daal li mënta nekk jigéen moom soxlawul ngantal lii ak lële moom dem jàkka du farata ci moom xadara ca mbooloo ma wasifa mbooloo ma du farata ci moom moo tax fu mu nit jotee rek su ko neexee mu jiital laazimam ak wasifam beneen bi ci des moo di mu wóor la ne da ngay biddanti yow rek nga ne xaaral ma jiital wasifa kooku du wér leer na mu wóor xam nga am na ñoo xam ne noctambule lañ dañuy toog rek di wax wax wax wax ba 4 heures du matin ñu tëdd fas yéene nag jëmale ko midi sama classe gi waaye bu dee loolu du tax ay nelaw kese du tax ñu permettre la nga war a jiital laazim ak wasifa déedéet te laazimu suba bi fokk nit ñi xam laazimu suba bi muxtaaram mu ngi tàmbalee minuit mu ngi jeex 14 heures waaw xanaa lii yaatu na minuit ba xanaa lii yaatu na fa la muxtaaram tàmbale daruureem moo tàmbalee 14 heures ba jant so waaye sëñ bi tarixa bi c'est très facile pour nit appliquer ko daruuri bu suba bi moo tàmbalee 14 heures ba jant bi so bu suba bi feek jant bi sowul tuddagul fay laazimu suba ak wasifa suba feek jant sowul tuddagul fay bu jant bi sowee lay tudd fay bu ngoon bi moo tàmbalee fi nga sëlmalee tàkkusaan moom mënoo ko def te julli woo tàkkusaan fi nga sëlmalee tàkkusaan ba jant bi ba fajar xar bu ngoon bi moo tàmbalee fi nga sëlmalee tàkkusaan fajar feek fajar xarul tuddul fay bu fajar xaree nag lay tudd fay kon bari na lu nit di wax ne tarixa bi dafa diis fekk moo xamut xanaa nag diggante min wi dëgg dëgg dëgg ba jant bi so waaye waaye war nga am benn poset boo mën a toog nag def sa laazim def sa wadifa soo ko amul ku sàggan nga wala déet waaw kañ bu ngoon bi tamit fi nga sëlmalee tàkkusaan ba fajar xar waaye xam nga ne war ngaa am benn temps boo laazimee wasifa yàqalul kenn dara bari nag ku naan nag maa ngi fay fekk tuddagul fay ci julli nag ak ci laazim ak ci wasifa bari na ku naan maa ngi fay fekk tuddagul fay moom moo xamul te nag boo xamul li ngay defal yàlla du wér parce que boo nee maa ngi fay te jooxe la amoo julli ah? da xam ne lii jooxe la nga jooxe xam ne lii fay la nga fay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki xam li muy defal yàlla ak ki ko xamut mu ngi mel ni guddeeg bëccëg ñi guddi gënee lëndëmee bëccëg bëccëg gën a leer guddi ki xam ya ak ki xamut noonu la mel seen tiyaaba it du yem beneen bi nag kon mooy leer na du boobu la woon ah waaw bu ñuy jiital bu dee minuit bu fajar desee quinze minutes mën a too ko def bismillah waaw kañ waaw benn tey maa ngi ñëw waaw kañ waa kii dafa mel ni loolu lay laaj de li ma bëgg a wax lay laaj ak li ma Mansour di dey du loolu la imam laazima suba bi waaw déedéet ba fàtte bu suba bi def bu ngoon bi waaw ba pare nag def na bu ngoon bi fàtte ne bu suba bi day defaat bu suba bi defaat bu ngoon bi waaw yëpp lay reprendre mu ngi mel ni li sëñ kër si waxoon masala tarixa bi ak masala sharia bi sorewul boo fàtte woon eh, eh, jullik suba julli tisbaar ba noppi nooy def ah imam boo fàtte woon jullik suba fàtte nga ko ba tisbaar nga julli tisbaar sëlmal sa xel dal ne i man kat julliwuma woon suba nooy def imam Talla da ngay fay suba julliwaat tisbaar charette kañ du jiitu fas du jiitu charette charette du jiitu fas waaw kañ te mënoo ne on remplace bii ak bële <laughs> déedéet ndax yéene tax innamal amalu bi niyaati wa innama li kulli imri ma nawa mënuloo ko mënuloo ko moo tax fokk rek moom mi ko fàtte day laazim bu suba bi defaat bu ngoon bi dégg nga atumaan du noon la bu dee démb la woon nit noonu la koy nosee ba ba mu yegsi ci bu tey bi bu doon daaw la noonu la koy nosee bi yegsi bu ren bi ma wax li gën a garaaw sax ah yim jotoon nee na fay na ko fay dafa fay bu suba bi rek bàyyi bu ngoon bi moom kañ daa gome rek fayut fayut de daa gome te defu fa dara moom kañ déggoo li ma wax lam defoon yëpp lay defaat dégg nga wax mi day bu dee démb la woon moom day fay parce que démb passé na day fay laasi mu démb laa bu ngoon ak bu suba bu suba ak bu ngoon fay wasifa démb bu suba ak bu ngoon bu doon barki démbit barki démb la koy tàmbalee bu doon daaw daaw lay tàmbalee janvier di wàcc si tarixa bi amul lu mu ciy maye ya awraadam yëpp la ñuy fay ni ñuy fayee julli la ñuy fayee laazim ak wadifa te bu wax naa ko ba tàyyi bari na ku jàppee silsila omariya silsila omariya mooy ku jaar ci cheikh alxaaji omar jaar ci cheikh mohamadul ghali wàcc ci cheikhul xaaji malik ñaari laazim moy sa farata soit clair na leer képp ku jàppee ci kuy def ñaar ñaar mooy safarata ku jàppee ci kuy def benn benn mooy safarata ki jàppee ci silsila omariya amul droit ne laazimu suba bi dama koy bàyyi wala wasifa suba bi dama koy bàyyi daf koy def dafay laazim suba laazim ngoon wasifa suba wasifa ngoon mooy farata ci moom boo ko deful manqué nga sa sëriñ kañ mënoo ko ëpp pas-pas sa sëriñ mënoo ko gën a xam te yàlla wax naa fii keroog ne leen Seydul Xaaji Malik yokkul dara ci tarixa bi lépp fi la ko fekk wasifa suba fii la ko fekk Cheikh na Cheikh Sidi Ahmed Tidiane daf ko daan def digle ko yii ñuy wax ne Maodo yi Maodo yokkul dara ci tarixa bi wàññiwul dara ci tarixa bi lim yokk ci tarixa bi kañ xanaa moo di ay client <laughs> waaw ay client moom yokk na ko ci te loolu taalib sëriñ bu ne bëgg nga say taalibe indil lay taalibe Maodo nag taalibe bu indi taalibe la indi ay jàkka ni ko sëriñam Cheikh Omar defee waaye bu dul loolu awraadu tarixa bi amul lu ci Maodo yokk yokk ci wàññiwu ci loo dégg Maodo di ko def rek Cheikh Sidi Ahmad Tidiane daf ko daan def kon ni ñuy fayee julli léeg nga dégg ko ne fay faat fay faat jullik fay faat amul fenn ci sharia amul fenn ci sharia téere bu ko nit gis xadiisu yonent bi wax ko wala kenn ci saxaaba yonent bi wax ko wax ma amul wérul ci sharia bi jullik fay faat ñaari rakka yu remplacé julli yi la rawoon yëpp ci sa dund amul fenn amul junni mën naa fay ñaari junni dama lay laaj alaaji Jóob alaaji Taala Moustapha yoreel naa la junni mën naa la jox juróomi téeméer mu remplacé ko yoreel naa la dix mille francs est-ce que mën naa la jox cinq mille bu remplacé dix mille am na amul fii ci Sénégal amul farata boo gis dix mille la taxaw naafila boo gis cinq mille la taxaw cinq mille kañ lay fay dix mille moo tax demal ca laxdar yi moom mu wax la nu ñuy fayee julli léeg-léeg nag ustaas yi nga xam ne bëgg lu yomb ak bëggi client bëggi taalibe bëgg daraja bëgg ñu ne moo fi wax lu fi kenn waxut loolu mënul nekk kenn mënu fee wax lu fi kenn waxut bu dee safaan boo fi wax waxoon nañ ko démb bu dee yiw woo fi def defoon nañ ko démb kenn defu fi defit rekk a fi ne defit mooy defit lu fi nit defoon nit dañ koy defaat rek ay defit rek fi ne moom laay ñëw walaw baax da fukki amin sax daf koy tënk noonu rek ne la walaw baax da amin waaye walaw baax da téeméeri amin la sax julli moom boo toogoon téeméeri at defoo ko fas yéene def ko doone tey jii laa koy def yaa ca yàlla baal ma dégg naa oustaz bu ko ubbee ma ne ah, waa baax na même dajeeg yàlla dina eh, xam nga yàlla moom dafa baax ku daf ñu koo gën a xam daf ñu gën a xam ne yàlla dafa baax yàlla bam baaxee mooy bi mu ñu bindee te waroo ko foofu la baaxee amal ñu ci am te waru ko di ñu xéewale te waru ko foofu la mbaaxam gën a feeñee sax bi kon nag obligation bi mu la sant wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun nga fetteerlu ne duma ko def ba neex la nga ne maa ngi koy def mu ne yàlla ko xam yàlla ko xam jaamam la kay xam na ne mën ngaa fay moo tax mu ne la fayal yàlla kañ ko xam jaamam la yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra mu teg ci waxaat ni yonent bi waxal sama jaam yi ne leen bugguma ci ñoom ak jàppandal ak ak jafeñal ak jàppandal rek laa bëgg ci ñoom laay beneen bi mu ne laa yukallifu laahu nafsan illa wus wus'aha teguma benn bakkan lu dul la attan waxul lam antan de wolof moo riche bu doon lam antan bu la neexee nga ne ñeenti rakka diis na ci man naa def ñaar wala déet waaye la attan la ko teg oto yi dooy gis ñu ne poids ñaata dix tonnes trente tonnes dañ xam ne attan na 30 tonnes moo tax ñu bind ci 10 tonnes 30 tonnes mais oto bu waru yi ah waaw yow une tonne 600 lañ la bindal jeex na yeneen ya nga gis ñu bindal leen 9 place yi 10 places yi 14 places yi 32 places yi cinq place parce que lam mën a yenu lañ ko yen yow it yàlla xam na la xam na ne attan nga julli mu teg la ko xam ne àttan nga woor mu teg la ko xam ne attan nga dem màkka mu teg la ko xam ne àttan nga naafila mu teg la ko xam ne attan nga saraxe mu teg la ko xam ne xam ne xam ne mu ne yii ma la teg yépp boo yaakaaree ni dafa diis man yàlla xam naa ne diisut ndax xam naa ne àttan nga ko mooy laa yukallifu laahu nafsan illa wus'aha teguma benn bakkan lu la mu attan yi ñu yàlla teg yépp dañ ko àttan parce que moo xam suñu tonnage ba mu teg ñu ko leer na léeg nga dégg ko ne laa yukallifu laahu nafsan illa ma illa wus'aha yàlla teguñu du li ñu antan bu doon loolu bu doon li loolu la sa naf su bakkan ngay topp danga naan woor gi àttanu ko naa ko ba wala de yor sa xaalis ci sa poos ne màkk daa metti fa faf naa toog génnee mille saraxe ko ne jaaxaan naan ataaya wala de waaye yàlla dafa xam ne màkk ji àttan nga ko mu teg la ko xam ne julli gi àttan nga ko mu teg la ko fajar tisbaar tàkkusaan timis gee boo ko defut xam na ni ci entraînement ngay dëkk fii ci terrain bi te moo gën a métti wala déet waaw kañ yàlla yim la teg yëpp boo ko defut yaa ngi def yu ko gën a metti boo demul entraînement it yaa ngi toog ci télé bi di seetaan film seetaan film une heure temps moo gën a métti julli film bu mën a doon boo koy seetaan lu neex neex moo gën a métti julli voilà dangay ngay wu te am na koo faral ci film bi te bëggoo mu am defet wala déet bu dee football nag moo gën a tee bon moom ka ko gën a jekk sax kilot lay sol bu xàccee mu xàcc bu dóoree mu dóor booleeg wuy sama ndey te doo ci jëlee dara laa yusminu wala yuxni min juin ah Ah, nit ñi nañ bàyyi yàlla lim ñu yenn attan nañ ko ku defu it toogal rek gis nga moo tax julli dañ koy fay boo demee ci laxdar yi wax na la niñ koy fayee julli ko julli nga julliwaat ko waaye boo ci dee borom laxdar yi ne dañ lay boole ci ñu sàggan ñi waaw boobay bi gën a élémentaire julli boo julli julliwaat ko julli suba julliwaat suba tisbaar tisbaar tàkkusaan tàkkusaan timis timis gee gee bu dee taalibe nag période bi nga jàppee tariixa bi boo ci yegsee da ngay fay safa wéetar yi maa la ko wax tous les safa wéetar da koy fay tous les ñaari rakkay gannaaw tisbaar gannaaw timis danga koy fay yu tisbaar yi kañ moom nga dul fay yu fajar yi waaye tous les rakk gannaaw timis yëpp boo yegsee ci julli timis boo sëlmalee da ngay dóor juróom fukki salaatul faatih door a wéy door a indiwaat beneen julli timis boo julli di nga dóor juróom fukki salaatul faati booy fay boo yeggee ci gee gee boo julli di julliwaat safa ak witr teg ci ñetti jawaratul kamal problème bi nag mooy boo mënut jawaratul kamal foofu de sama ubbeeku yeggu fa xanaa ñu jéem a seet est-ce que ñaar fukki salaatul faati yële ngay def ci boo mënul jawaratul kamal ci la wazifa est-ce que mën nga ko def fii te loolu gisaguma ko gisaguma ko de ah kon asatise yëpp ñi fi nekk nañ gistu ji ku gis rek nga wax ma Oustaz Abdou Aziz